formation qui garantit l'emploi et permet d'obtenir des résultats probants dans la gestion des projets ndaxte madame la ministre su fait ni nous avons 13 milliards ci DER bi jox ko jeunes té jangou gestion des projets fay maalix non rek la wolof di waxee maalix manam du mujj fenn té bu mujjul fenn non seulement xaliss buy dem la mais du jëriñ dara te emploi des jeunes mooy mooy mooy c'est-à-dire que dirigeant dirigeants, emploi des jeunes c'est un problème kuy on di indi programme problème mu emploi des jeunes ngay indi mais boo ñëwee da ngay confronté wu à la dure réalité parce que yenn saa yi dañu yàkkamti te boo yàkkamtee doo jël temps wu def formation te formation bi c'est nécessaire c'est-à-dire formation moom mooy tax nga mën a am emploi projet bi nga xam ne xaalis bi ñu lay jox boo deful formation doo ci mën a yegg doo mën a doo ci mën a am la bëgg te itam au-delà de la formation madame la ministre je crois que am na projet yoo xam ne euh, Khadijatou wax na la ko léegi ci affaire Prodac bi da ngay def tam benn temps d'arrêt nga def étude d'impact parce que waxtu woo xamee ni yaa ngi jëlee nit ci niveau un bëgg ko yóbbu ci niveau deux bëgg ko renforcer bëgg mu am liggéey liggéey boobu mu am war na impact ci famille bi war na impact ci localité am bu boobaa da nga war a def étude d'impact étude d'impact yooyu moo lay mën a permettre nga mën a rectifier yenn yi mën a continuer fa nga jëm te nag Matal Demba Mbaxé ma ca ngol-ngol yéene nañ la réussite parce que da ngay ñun Guédiawaye nga nekk. wante nag cosaan la Bambey la nekk te xam nañ li li ñu doon ci beneen côté bi bu ñu neexee ñuy bàjjen il est vrai que jaam ngee ñu gënal mais kenn ku nekk la nga nàmp ngay toqamtiku war nga rassembler war nga am cër war nga jox ni ñi cër te jeunes yi nag duñ bu leen neexee ba a nekk ay kilifa de mais ñu soxla cër lañu ñun ñi sax dañu koy exiger. jeune boo am ci sa parti wala nga am ko ci sa koñ wala dara bu ñëwee da bàyyi la nga defoon yëpp nekk ci ñoom disponibilité boobu nag séntu nañ ko ci yow xam googu ngax xam àddina dëkk ci réew mi bokk ak ñëpp nag tax na ñu am ci yow yaakaar.